où j'ai habité, que ce soit à Saint-Guilhem où j'habite, où mes parents habitent, que ce soit à, à Richardson, à Khoumapoul, là où j'avais habité. Tous les Sénégalais doivent sortir, manifester, parce que Macky Sall, ah, n'appartient pas ce pays. Les, les, les élections doivent se tenir le soir du 25 février. La, euh, en toute circonscriptionnelle. La démocratie fait partie de l'ADN du Sénégal. Ça fait partie de l'ADN du Sénégal. Même moi, je suis maman, j'ai jamais connu un coup d'État. À ah, pour les votre raison, vous, les jeunes, vous n'avez jamais connu un coup d'État. Vous ne savez pas ce que c'est un coup d'État. falou depois. Não, não ao nos élections, nous voulons cette démocratie, nous allons nous battre pour cette démocratie et jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Et c'est ça le peuple sénégalais. Je suis vraiment Merci à vous, madame. Merci beaucoup, madame Adigay Cham. Je vous annonce que Mimi Touré, Mimi Touré une délégation. Détefal aussi a envoyé une délégation, c'est bien de le parce qu'ils ne font partie du combat. vous plaît, merci. Nous voulons également remercier la police française qui est là et non le, la police sénégalaise qui est en de tuer les policiers du Sénégal, vous devez protéger le peuple sénégalais. Nous allons après le grand parti Makoumba Sadi. Makoumba Sadi du grand parti.

Heureusement qu'au Sénégal, il jeunesse saine, digne, courageuse et battante. boo xoolee ci beneen sànq nag gàcce ngay am parce que courageux ñoom ñoo leen wóolu waaye may wax jeunesse bi ne leen fi ngeen teg seen tànk bopp la leen ko teggi bu tànk bi nekk si bopp réew mi teggee ko soit ci ni mooy mu wàcc organiser élection yi dem yoonam ak ñu wala obédience solo mooy suñu réew la ñuy tabax dañ ko tabax jom bi nga xamante benn coin banlieue yi te duñ ko mën a génn parce que ci kaw ñu la waroon jàppale na plateau bi par pour nga yegg place pas concernés maintenant pour que jeunesse bi gën a euh, def un combat efficace te duñ toj dara duñu yàq dara ko gagné kenn du génn kenn du kenn génnul ken duggul on gagne le combat beneen bi ñu nekk ci région yi bu kenn jàngi bu sob sob di jàngi xam ngeen ngeen war a def commencé ngeen ko déjà il faut continuer tout ça amul délai délai bi mooy ba mu wàcc réew mi beneen bi ñun ko testé di ko ay cotisé levée de fonds loolu bokk na si am na solo génn manifester na am na solo ñu ngi koy encouragé mais des solo parce que tey yaayu diw wala nos universités contre nos enfants voilà quel est l'enjeu il ne s'agit plus maintenant de demander le départ de Macky Sall il s'agit aujourd'hui d'une nouvelle constitution qui donne le pouvoir au peuple une vente aux nouvelles règles qui permettent à ce que nous puissions partager nos richesses pour nous, pour nos enfants. Ne vous trompez pas d'ennemi. Notre ennemi, c'est la France-Afrique. Notre ennemi soit remplacé par Karim Wad. et l'ensemble des partis qui sont avec eux sont nos ennemis. Il faut aujourd'hui permettre à ce que ce soit le Sénégal qui soit président. Qui est le président Nous Qui décidons Nous Est-ce que vous êtes Est-ce que vous voulez vous battre mourir Car mourir, c'est rester vivant. Ce sont les peureux qui vous des esclaves. Alors, je vous le dis, Le combat ne fait que commencer. Ne nous arrêtons pas. Continuons de sortir. Mettons la pression et chassons le tyran. Allahu Akbar. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les gars, les gars, le temps nous prend. Donc, s'il vous plaît, deux minutes par intervention, pas plus. Deux minutes. Mariama, on passe à qui Makumba du grand parti. asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum mbooloo mi donc ay donc ça ñun fierté pour nous moo tax boo xoolee boo xoolee Sénégal nga rey ko moo gën a nga def déshonoré ko le slogan des armées c'est on tue mais on ne déshonore pas Macky Sall nag il nous a complètement déshonoré daf ñu daf ñu déshonoré comme parce que man comme ni ko Ibrahima doon waxee tout à l'heure c'est pas au Sénégal vous avez quoi quel est votre problème Sénégal c'est une référence en matière de démocratie qu'est-ce qui se passe il y a du mal à expliquer ce qui se passe parce que tout simplement on a nous a vendu quelque chose vie réelle vie responsable donc man ma ko wax aussi actuellement à part l'archevêque de Dakar on n'entend personne amul kenn ku réagir grands conférenciers yi les chefs religieux ñun ñëpp kenn réagir pourtant ñun ñaa ngi dee seen taalibe lañu seen doom Ça veut dire qu'au Sénégal, il y a une mafia politico-religieuse. Il faut que nous déstabilisions l'autre. L'autre, tant que ça nous aussi, on va, on, on va lui. On a remercié vraiment nous xam ne ñu ci teew comme su fan ko waxee même mu doon benn nit c'est que su ko gagné donc dañu maa ngi encouragé ñu am ko amoon niveau de calme on va faire tout ce qu'on peut tout ce qui est de notre pouvoir. donc lépp na dem na dem na dem na dem na dem na dem. waaye waaye. yaa ngi wax li nekk sa xol nga yokk ñu motivation. ñu demee ne demee leen nii rek voilà waaw waaw dëgg la dëgg la donc c'est vrai xam nga dañ koy jégal par rapport Khalifa Khalifa

même le dépôt il est mieux encore. Là, c'est mieux encore. Là, c'est mieux encore, Après, nag dinañ am problème je pense. ah, ah Macky Sall démission Macky démission Macky Sall criminel Macky criminel rajo day di licence droit def ko depuis des cinq des semaines des mois des années am benn seet ñun ñuy parce que dara as nañu ko parce que article cinquante deux ay décret numéro sangam dañuy ñor dañ fi ñor ba toog ba seet ba xam ne yoon nekk ci ñun li ñu bëgg moo ñu tëral yoon ba defal yoon ba ñu mais en fait seen yàlla yëpp kenn ku ci wala di déglu ne du ko neexee ñu ñu teel suñu di ko xaar attentis am yaakaar waaye nag kenn du la nekk te ñun li ñu dugg plané suñu bopp quelque part dafa la ñu xam dafa la ñu waa ji nii lay doon te ba léegi xamoon nañ ko il faut que waa ji di dund xamoon nañ ne yëfu baadool lay def ñu te mënul doxe ay juróom ñetti am yaakaar tey nag gis nañ suñu gis nañ gis nañ ko suñu bopp waaye nag bu waxal dëgg kenn di ngeen xalaat suñu lii du yoon gisal bokk sa bopp quelque part fulal dañu ne borom moo koy fajal boppam bi nga xam ni on est la croisée des chemins lii du yoon gisal bokk sa bopp c'est ça on est la vie d'un homme suuf kanam ne ina rek borom moo faj yàlla da lay bàyyi ak sa responsabilité boppam yàlla da lay natt on est ñu option nga muy xare la croisée des chemins loolu la defaloon jënd bi xare ba daal face à l'autre woon lenn lu dul yàlla da lay natt ñu ne yonent bi ñaanal yonent bi ñu ne ñaan na waaye yàlla loolu la defaloon jënd bi xare dañuy jàmbaarloo woon lenn lu dul xare amul dañuy xaar kilifa yi wax ci ñu ne yonent dañuy ñaan na yooyu yëpp ay yëfu tappale la waaye yàlla dañoo xaar abi conseil constitutionnel rek ne bu ngeen dofee bay xaar nan dañooy ay loi nangam ay article nangam fi am yooyu lépp ay tellement la fii xare xare rek dañuy xaar abi conseil xare ak moom conseil constitutionnel parce que bu ngeen dofee bay xaar nan dañooy ay loi loolu rek moo fi des ku leen wax leneen ay article nangam yooyu lépp ay ku leen wax leneen mi ngi leen di nax ndaxte nag dañoo xaar ba sonn. xaar xaar xaar